bi nag pour mu bañ a gudd dara warulu ko lu dul dañu wax ça fait quatre mois ñu ngi xeex ak direction bi mais mën nañu jàpp ni ça fait plus de six ans ñu ngi dund lu metti biir direct biir Grand Moulin de Dakar et sous la houlette de cette nouvelle direction ba nga xamante ni DGA bi ak DRH bi ñoo koy diriger ñu dund lu méttee méttee métti Grand Moulin de Dakar ñëpp xam nañ ni Mimran ñoo ko fi implanté woon ça fait plus de 60 ans bobu ba légui nit ñi di ci dundu di ci daan seen doole di jël seen ñaq ci sutura ak teraanga di ñibbi seen kër di suturlu ñoom ak seeni ay njaboot mu dem ba Grand Moulin malgré que mu nekk une société multinationale malgré que ay français moomoon ko les travailleurs des Grands Moulins se sont appropriés les Grands Moulins de Dakar Grand moulin dafa dem ba nga xamante ni ñun sénégalais yi ñoo ko moom. travailleurs yi beaucoup de Grand Moulin de Dakar liggéey nañ ci corité liggéey nañ ci tabaski liggéey nañ fi tamxarit liggéey nañ ci Pâques liggéey nañ ci Noël suñu nous yi di doxal Grand Moulin depuis fekk mbokk lay wol ba tey Grand Moulin di écraser treize mille tonnes de blé par jour am trois unités de production de de farine am deux unités de production d'aliments de bétail am deux unités de production d'aliments de volaille loolu yépp travailleurs Grand Moulin de Dakar vous les vaillants ouvriers vous les vaillants travailleurs des grands moulins de Dakar vous êtes ko liggéey mais malheureusement depuis 2004 2014 astafurlah d'après 2015 nous assistons à un climat social délétère au grands moulins de Dakar un climat social qui ne dit pas son nom Nous sommes à tout bout de champ di jël suñu ay acquis sociaux. mën naa ci nommer le pré habitat bi nga xamante ni existe na depuis plus de cinquante ans képp ku am tey kër Grand Moulin de Dakar pré habitat boobu moo la ko may ñu teg si suñu colonie de vacances yoo xam ne suñu ay doom ñoo ko moomoon di ci dem vacances chaque année ku nekk yóbbu nga si sa doom ñu jógee fu ñu amoon suñu caisse de solidarité boo nga xamante ni service bu ne am na ay déchets yu muy jaay ñu di ko dajale di ko def ci benn caisse di ko dimbalee travailleurs yu nekk ci ay xat yooyu yëpp direction bi bu mu ñëwee sous la houlette du DGA et du DRH dañoo dindi lépp ba mu set wecc ba mu jeex tàkk te kenn sañul wax kenn sañul pipe moom loolu doyul ñu dunu dàq à tout bout de champ ñin fi dàq nag bëri na de ñii dee nañu ñii dox nañu ñii ñi ngi seen kër di torox di sonn mën nañ si cité El Hadj Lamine bi nga xamante ni moom lañ tuddee groupe bii mu nekkoon un vaillant délégué parce que Diegane xam na ni Lamine Camp bi arrangé wu ko dans l' entreprise il a tout fait ñu en ñu attaqué ko chargé ko tapas góor la mu fay ñu enregistré ko ñu dàq ko sans motif valable et sans indemnité de licenciement mu génn mu def ko un choc émotionnel mu nekk ci ay tolof tolof ba yàlla moom ko yal na ko yàlla yërëm te jégal loolu la ñuy dund biir Grand mu leen Dakar mënuma wax nag ñu ci dàq yéen mais lu a lu déficit IPM depuis plus de 5 ans 6 ans loo xam Grand dund ñu bokk IPM IPM boo xam ne nga groupe ñun Grand Moulin fay déficit mais waa compagnie sucrière ñu déficit jamais vu dans l'histoire du monde du jamais vu nous duñu ko faylo diñu ko faylo yalla mi dara tawul avons ñoo séminaire ñun délégué du personnel ñu ñew tok inspecteur du travail nous avons IPM kenn du fay déficit su un problème dañuy yok dañuy yok cotisation yi wala ñu wàññi taux de prise en charge à notre grande surprise ñu ñew après séminaire bobu le 18 février ñu ñew au mois de mai ñu indil ñu benn lettre Monsieur Bavard l'a signé et nous a dit qu'on un déficit sur l'IPM de 7,5 millions et quelques. Nous ne pouvions pas le faire. Il y a des fois, même si nous avions fait un déficit de 1,5 millions. Nous avons dit direction que nous ne pouvions pas payer un déficit sur l'IPM. Si l'IPM n'avait pas de problème, nous ne l'aurions pas fait. Nous ne l'aurions pas fait. La direction a pris la décision unilatérale de nous faire payer ce déficit. Alors, on a dit que nous ne pouvions pas le faire. Parce que nous avons beaucoup de problèmes lu dul dëgg du continuer te du wéy te ragal yab yàlla la alors coow li ñu kuur nag ci biir moulin bi mais comme dañoo tàmm ndeysaan ñun dañoo def comme ay xar suñu ñu bëggee apat rek dañuy sànni sànni xaalis ñu am suñu intéressement sur le bénéfice ñu laaj ko ñun ne su ngeen bëggee ñu jox leen seen xaalis da ngeen di nangu ñu fay si déficit bi ñun leen kon téye leen ko ñu am suñu fulla ni leen téye leen ko alors ñu dem ba ci kanam coow li bare ñu xalaat ñu comme Covid dafa am mënuñu def assemblée sur créer groupe WhatsApp ñu créer suñu groupe WhatsApp le 19 mai 2020 ñun travailleurs des Grands Moulins de Dakar délégués nek administrateur administrateurs yi la goutte d'eau qui avait débordé la base, le 4 juin 2020 on nous a servi des sommations interpellatives sur huit délégués et sur cinq travailleurs yo xam dañ leen plouf tan leen ci groupe alors nous avons mu le staff ñu créons le 5 à notre grande surprise Nous licencier 5 travailleurs sans motif et sans raison valable introduire au niveau de l'inspection du travail l'autorisation pour licencier huit délégués du jamais vu dans le monde du travail donc loolu donc nous, nous donne dund biir Grand le Dakar bobu ba nak le 5 juin vous ba ñu ci direction l'inspection du travail a dit le droit il a rejeté l'autorisation de licenciement mais malheureusement la direction s'entête à vouloir licencier les cinq travailleurs parce que nous avons ne comme je l'ai dit tantôt cinq yooyu pas Sidi du Ngagne Aliou Sène Mamadou Samb am Mamadou Sambo, Cheikh Ibrahim Sanya, jàpp leen ni am ngeen ay wéeruwaay ñun travailleurs des grands ñun travailleurs des grands moulins Dakar ñooy seen wéeruwaay et on va partir en grève on va partir en grève inchallah la semaine prochaine dama bëgg chers travailleurs nañ gëm yàlla gëm yonent bi te dëggal suñu bopp nañ wóolu suñu représentant syndicaux yi toog nañ gëm yàlla fii ñu toog c'est pas par hasard mi ngi tudd Kër Madia te ñëpp xam nañ Madia lu mu def dans le monde syndical ñëpp xam nañ Madia lu mu lutter pour que travailleur jot ak xam ak yelleefam ñu ñëw tey ba vingt-et-unième siècle une direction qui se dit que du ma toog ak ay délégué ça c'est le comble la direction a dit que du toog ak les délégués sur ce sujet un sujet boo nga xamante ni c'est porté par les délégués du personnel une direction boo nga xamante ni dafay nekk di suufal délégué yi day nekk di rabaisser délégué des day nekk di diviser délégué yi day nekk di diviser le personnel mais on va leur montrer qu'on est là debout comme un seul homme à faire face à eux Sorun üzülmesi. Sorun üzülmesi baba. Hepsinin ailesi. Yine ne gibi bu sıva. Mesela ne gibi bir şey. Tekrar arasında ne kadar sitim. Yoksa ne kasar Produce balaye. Prendre la parole de racisme. Et pas à mon dire, le maire peut comprendre. Il faut tous les balayer. Voilà, voilà, justement, justement. Il y a toujours des couleurs graves. Il faut sonner la mobilisation. Il faut sonner la